اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين مكي يا تي في نجي دولي دلين نجي ديالو دلين نيو دلين زيارة يعني يالا سبحانه وتعالى يالا نجبالي ننغل تدارجين صلى الله عليه وسلم تبارك ويارو قربي ah ñu ñëwaat nag ci sunu émission bi mi ñu tuddee al asilatu wal ajwiba fi ramadan ay laaj ak tontu ci koor ngeen di ci ànd ak seen mbokk lu Abdoulaye Fall ah tey laaj bi dafa laaj ni nee na daal dégg ni du bépp feebar mooy waral nit dog koor kon ana yan feebar mooy waral nit ki dog kooram ndax ba ci mettitu bopp ak bëñ dina waral nit dog kooram pour tontu loolu ah, ah yàlla moom dafa wax ni euh, képp koo xamante ni dafa feebar wala nga nekk ci tukki mën nga dog bu ñu waree nga konte fan ya nga woorul nga feebaroon nga fay ko wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar ولا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر واي لي اوبتي بروم خم خم هي بوكنا الائمه الاربعه ينتي اكول لي غامتي مو غنا سيو تو ماي غيرو مالك احمد ابن حنبل الشافعي ابو حنيفه يوم دني feebar daal du tax nit dog kooram lu dul ne dafa nekk feebar boo xamante ni feebar bu tar la ñoom ñu tënk ko ci feebar bu tar nag ne mooy bu fekkee ni nit ki bu wooree koor ga day tax feebar ba dolli ko walla bu wooree naam feebar ba du dolli ko waaye day yéex wër wala du dolliku du yéexi wër sax waaye dina ci am coono bu rëy bu fekkee ni woor na ñu dolli ci na képp kom dafay ragal feebar sosu bu wooree yeneen yii mooy feebar yi nga xamante ni yu tar la dina tax nit dog bañ a woor waaye eh, sëriñ bi ñu wax ibnu dafa wax ci almughni nee na feebar bi tax nit dog mooy feebar bu tar bi nga xamante ni bu wooree day dolliku walla muy ragal mu yéexe wér loolu mooy feew bu tar bi nit mat naa mën bañ a woor dañoo laaj Ahmad kañ la nit dog kooram mu ne bu fekkee mënatu la woor dal mën naa dog kooram ñu ne ko ndax feebar bu ñuy wax alxumma te mooy siibaru tàngooru yaram moom mu ne leen ndax gis ngeen feebar bu gën a tar tàngooru yaram kon muy yëgle nit bu amee tàngooru yaram sax dañuy wax siburu mën naa dog kooram kon loolu tax lenn ci borom xam-xam yi ne dagar na nit dog kooram bu fekkee donte coono sax amu ca ci bu wooree kon ñoom dañuy delloo ni man kaana minkum maridan wala man kaana maridan ñoom dal marat dal bu xasee am daal bu manti doon ndax yàlla lool la wax bu mën a am rek te nit ki mën ko supporter woor ko mën naa bañ woor waaye cheikhul usaymin moom dane feebar bi nga xamante ni du jeexital ci koor gi naam nit ki feebar na waaye du jeexital du feeñ ci koor gi ni ki zukkaam nga xamante ni mooy grippe bu fekkee dafa néew mooy sonalu ko lool wala su bi ñuy wax soj bu néew sonalu nit ki nool wala feebaru bëñ buy metti wala loxo buy metti ak yu ko niru dee na loolu de du tax nit ki dog kooram doonte lenn borom xomp mi feebar bu mënti doon la yàlla wax man kaa kaane minkum maridan waaye dañuy xool bu fekkee ni daal feebar bi ko dal dog mooy gën a jàppane ci moom pour feebar ba wér ngir ay garab yu muy naan te médecin bindal ko ko ne koy naan ci heure tal ci bëccëg bi mën naa dog wala boog du jeexital ci moom kon kooku mën naa bañ a dog kooram kooku mu woor farata lay doon ci moom yàlla daal moo xam yàlla yàlla def ci ñu dégg ak topp képp koo xamante ni bugg nga am loo ci leerlu mu woote ci numéro bi 77 849 45 01 يلا يلا يلا في دقيق طب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأسئلة والأجوبة في رمضان مع فضيلة الأستاذ عبد الله فال أي لاج أكيتون تيوي ركور عندك سنبوك أستاذ عبد الله فال